mbégte la parce que ñu ci bëri kon ñoom ñoo koy rek euh, daal di xaar kon Mao euh, bu nekkee euh, pare nga ñu tàmbali ak Awa Diouf mi nga xamante ni tey voilà Awa Diouf mi nga xamante ni tey day def anniversaire am donc Awa Diouf maamu Astou et Maya de la part de Yacine Faye et de tous ses enfants yaayu Kia Aydara ah c'est la maman de Kia Aydara Donc, euh, bon, euh, c'est ce qui a été écrit. Donc, joyeux anniversaire à toi, euh, euh, maman. Happy birthday à Meina Traoré, notre chat. Meina Traoré, Beri, de la part de toute la famille et de la part de ta maman. Joyeux anniversaire à Meina Touré. happy birthday aux jumelles, Amina et Mami. happy birthday. Soda, de la part de toute la famille Chorosal Doudou Sow, ton oncle. Joyeux anniversaire donc aux jumelles Amina et Mamie. Joyeux anniversaire à Mamadou euh, Soumaré des Vieux. Mamadou Soumaré des Vieux, mon Migi Djourbel, c'est de la part de tous tes amis de Mengis. De Mengis. Hein, ah, je pense que c'est bien cela. Euh, Penda Gueye euh, fête son anniversaire aujourd'hui Penda Gueye euh, joyeux anniversaire euh, à toi le avril dégg naa yow yaa ko moom un happy birthday happy birthday euh, à la toute petite mignonne bébé Awa bébé Awa donc Autriche la dëkk elle fête aujourd'hui cinq ans bébé dundal wéral ba teral kon say waajur happy birthday à bébé Awa Gueye bébé buy souhaité buy def tey anniversaire am Euh, moom mooy euh, Ndeye Awa Badji aujourd'hui donc la petite euh, elle la trois ans donc happy birthday à toi ma petite puce di la ñaanal gudd fan ak wér yàlla may la ko kon ba nga mën a daal di teral say way jura keneen la aussi di suñu bébé de day def anniversaire am tey jii euh, di ko souhaiter un joyeux anniversaire euh, Mouhamed euh, Dobali Goudiabi moom tamit trois ans lay fêté tey jii Mouhamed Dobali Goudiabi happy birthday à toi un happy birthday à Maman Ndoye moom Cambérène la dëkk Maman Ndoye Cambérène joyeux anniversaire à toi c'est de la part de toute la famille joyeux anniversaire à Habib Dieye Habib Dieye joyeux anniversaire à toi sa jabar nee na yow la bëgg euh, donc bu ko waxee moom la bu ko waxul yow la bëgg donc de la part de Komo Diakhaté nu ñu ko bindee rek laa koy liiree nag donc joyeux anniversaire à Habib euh, Dieye de la part de sa femme Komo Diakhaté un joyeux anniversaire à ma fille euh, Amidia euh, longue vie santé Euh, et réussite totale de la part euh, de son père Laïdja moom euh, Médina la dëkk happy birthday à toi Amidia Euh, joyeux anniversaire euh, à Mame Ndiogou yal na la yàlla dolli sa sutura defal la jàmm ak yiw xaalis bu bëri mu boole ko wokk ko ñun ñëpp de la part de Mass Mass euh, waaw Mame Ndiogou Sy bu Serigne Maodo Sy maam macha allah hmm. ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ndax ku am solo la si diina ji uh-huh. mais itam kuy dimbali ndaw ñi na si tariqa bi ak si diina ji yal na ko yàlla taas si barke maamam suñu maam Seydil <laughs> defal defal la kon sutura defal la jàmm yiw ak xaalis bu bari maas moo la koy souhaité happy birthday à Oumou Oumou voilà happy birthday c'est le message qu'on a reçu euh, bébé Yama euh, happy birthday à toi bébé Yama euh, de la part de Kader Lo bon anniversaire euh, à Rakiwan euh, Sacré-Cœur 3 le dëkk santé euh, donc Rakiwan voilà santé longévité bonheur et plein de succès de la part de Tata Ndeye Binta Lay Gueye à Guédiawaye Un euh, happy birthday euh, euh, la Papa Beydi Gueye, fils de Ahmed et Maman Mbaye, Dundal Badoyal mon petit. Euh, joyeux anniversaire à Bathie Seck borom Tiwaawan baax nga yaru nga te am diine donc dundal ba énervé bul énervé nag dundal lu neex euh, euh, yow Bathie Seck joyeux anniversaire moom nag Tiwaawan la ne duñu rek seetaan Pape Souley Diallo non non kii kuréer la donc dinañ ko indi kon ci kanam voilà nag du anniversaire mais ku kuréer la Pape Souley Diallo la tudd dafa réer doomu maam Xari Ñas Euh, donc euh, xale bi dafa réer euh, bon maawo bu nekkee mën nañu jox numéro téléphone yi nga xamante ni ku ci bëgg ku ko gis fi nga xamante ni fi nga koy rek daal di wootee dinañ ko kon dinañ ko joxe balaa kon nee nañ joxewuñu numéro mais ku ci gis ay lu leer rek na nga woote voilà na nga woote kon fii ci euh, TFM ku ci am kon ay euh, leeral wala euh, nga woote nga laajte Mawo Cissé incha allah moom Pape Souley Diallo dafa réer kon nekk doomu maam Khary ku ko gis voilà ku ko gis kon nga nga nga daal di koy rek xamle voilà mu nekkoon li nga xamante ni moom moo nekkoon yeewu